ziara di ñaan yàlla mu dajawaat fi déwén ak déwén yu bëri bëri ci turam nangoon liggéey bi ci barkab sëriñ bi maanaam ko waxee rek moom am naa ci fan ndax 1978 laa ko tàmbali jàng ren mooy ci ñeent fukki at ak ñett sëriñ bi doomu aadama day waaye xasida moom amul fu amul kenn fu mën a yóbbu ndax yi sax yëpp li si am solo mooy mooy mooy bi ak ak ak ak sellal gi ak yëg gi ak fonk gi ak ormaal bi loolu rek la xasida laaj te it ak it di ko def ngir jëmmi sëriñ bi kese waaye lu ci lu ci lu ci rax rek sëriñ bi gën sëriñ bi dafa dafa dafa fiir lool xasida yi ñun ñëpp wax naa ba tey ni ci xaalis moo gën a yomb ci sëriñ Tuuba am ci xaalis yomb na lool waaye am ci sëriñ ndax sëriñ bi dafay yër xol moo tax waaw xol lay lay seet ku yër xol sëñ bi xol la yër moo tax euh, euh, fi mu ne nii li may ñëw njaarim rek su ma ñëwoon ci sama xel ah fukki ren jii nag xanaa loolu ba naa fa am téeméeri junni dafa amoon cent milliards amoon njëriñ parce bi gën na suñ mu tax di foo siy dem ak loo siy def jublu si liggéeyal sëriñ bi rek ndax borom moom loolu la si jublu woon liggéeyal ci borom rek xasida li muy defal nit ku koy jàng daf koy bett waaye du lu muy yaakaar du lu muy séentu loo ci yaakaar di ko jàng wala nga séentu ko jàng rek loolu mën na laa teg waaye la la see jëriñ ñu koy jàng du yaakaar du sax da lay bett rek moom ñu ko def moom sëriñ bi moom moom la xasida yi bett waaw noonu la ko bindee waaw dafa ñëw huddan woon woon ridan baraka faji ali njub ak ngërëmal yàlla ak ak yërmande yàlla ak barke ñoom ñeenti ji dañu maa bett ci fekk maa ngi tëgg si xasaay si yéen si kon moom moom moom la ñuy bett kon li si am solo rek ci ci mooy mooy ni mu ko waxee rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy defar gi jëmmi sëriñ bi kese yombul nag defar gi jëmmi sëriñ bi kese yombul de moo tax man la am ci xaalis yomb na lool waaye am ci sëriñ bi da yomb ndax sëñ bi day yéen xol te lu soob rek mu génn sëñ Mouhamadou Bachir nee na fii ci kër gi sëriñ sëriñ Tuubaa woon ma bis ne Mouhamadou Bachir na ngeen ormal sama xasaay ji na ngeen fonk sama xasaay ji na ngeen wóor ni sama xasaay ji wuutuñoo ba leen ak dëgg sama cër yi jox leen dama la jëmale kër kon loolu kenn xamul nu mu toll wax ju yaatu la woon sax nee na ci loolu wax naa ci wax na ci wax ju yaatu nga xam ne ci la bokk ci euh, euh, man ku bëgg am ci man dara day boole ñaari muñ yii muñ coore jaamu yàlla muñ ban yeexu ban yeexu moo yàlla ku muñ ñaari yi da nga am ci man li muñ coore jaamu yàlla yi muñ ban yeexu moo yàlla <laughs> xam ne ñaari muñ yi ngay boole <laughs> yombul nag euh, waaye nag ah, nan góorgóorlu rek nan nan nan fabu rek gannaaw eh, bëgg nañu ah, nañ wut rek ndax lu lu yàgg yàgg ñu wutul bëgguñu duñu ñoom ñoom kii rek ab ci wax ma ci wax waxtaan woo ci la waxee ma Mouhamadou Bachir taal bi ma taal mooy yoonam bii taal bi ma taal yàlla bindul ku ko mën a fay lii di kër gi la ko waxee ni taal bi yàlla bindul ku ko mën a fay te tekki ni man man ko taal sax mootuma ko fay man ko teg man ñu ko taal sax mootuma ko fay man kon kon yoon yi moom napp ni ci des nag ah góorgóorlu daal moom ah, ah, ah, amul <laughs> góorgóorlu rek góorgóorlu gi amul fu mu yem nan gën a góorgóorlu rek gën dajeeg tawfeex sëriñ bi parce que moom mi ngi fi du fi jóg mi ngi gis mi ngi dégg mi ngi xam mi ngi yëg mi ngi dem mi ngi dëkk am na am nañu fii du ko waxee am na ñoo xam te nii ñu toogee ma xam ne yaa ngi sol yére bu ñuul ki sol yére bu yaar nanga ba noonu la ñuy toogee sëriñ moom ba nii ñu koy wax ba faw am na ñu yegg foofu am na ñoo xam ne yegguñu foofu waaye bu ñu wax ak moom ci soxla dañ leen tontu si daañu dégg daañu dégg tontu ko am na ñu yegg bu dee ko mel ni man na nga xam ne foofu yëpp newoo fa mën nga gént gis ko rek gént ñëpp koy def waaye fii ma la wax ni am na ñu yegg foofu loolu lépp nag moom moom li ñu koy may rek euh, mooy mooy mooy mooy yitte ju kawe rek waaw <laughs> yitte ju kawe rek li ñu wuti rek mag ñi rek ñun duna bari lañ bëgg mag ñi dañu bëgg Sëriñ Tuubaa kese boole wuñ ci dara bëgguñu leneen xool ñu leneen moo tax li ñu mën duñu ko mën a bukk ñun dunoo bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg mburu lamb yi bëgg musicien yi bëgg waykat yi bëgg xaalis bëgg kër gu rafet bëgg loolu li ñu boole moo mënta am loolu rek mooy suñu problème waaw xasida yi noo jàng ba dee waaye demut noonu demut noonu ah, ndax li ma ko waxee rek li <laughs> ma ko waxee rek sëriñ bi daal dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa nan ko gëm daal si ñoom jëb daga ne laaj ñu ko fi ci kër gi ne ko xanaa gis sa jëmale yi baax na mu ne waa ah baax na kay waaye gëm gee gën gëm gee gën ndax tubaab gis ñu ba tey jéeguñ ci man kon na gëm gi dëggu na bëgg bëgg sëriñ bi nag loolu laa jeexale ñun ñëpp koy wax continué bëgg naa sëriñ Tuubaa waaye ñu ko def bariwul de sa masque duñ wax nii rek waaye bëgg sëriñ Tuubaa lu jafee jafe jafe si sayli boo ba ko wax radiyallahu anhu wala ma ci këram gi ci Tuubaa ni ma dama daa bëgg dimbali ci bëgg sëriñ Tuubaa ñuy wax ñu bëgg sëriñ Tuubaa lu koy wéral ci taalibe bi da bëgg Sëriñ Tuubaa li mu bëggoon bañ a Sëriñ Tuubaa li mu bañoon ku deful loolu su bëgg Sëriñ Tuubaa wéeru ndax noo ngi foofu bëgg na Sëriñ Tuubaa li mu bëggoon te di ko bañee la mu ñu ah, ci nekk bariwul de ne loolu de ku ci nekkul su bëgg Sëriñ Tuubaa wéeru kon nag ah. Ah? waaw. ah danoo gis nga bëgg Cheikh Ibra Fall rek. Ah, waaw dama ah. xam na ne sonn nga waaye sa bëgg Cheikh Ibra moo tax. maa yooyu de maa yooyu de sama bëgg Sëñ Tuubaa ko de ndax Sëñ Cheikh Ibra Fall ku ko bëggul bëggoo yàlla bëggoo sëriñ bi it nag bëggoo lislaam bi waaw xam ah, ah, ma ma ah moom ku ko bëgg sa tawfeex la bëgg Cheikh Ibra Fall moom. moom moom ku ko def rek da nga yàlla yàlla la dara dimbali rek loolu rek la ndax moom moom moom moom moom moom moo gis sëriñ bi moo dégg sëriñ bi du ma ñu moo xam sëriñ bi de ndax sëñ bi sax moom nee na ku yàlla xamoo ko waaye daal sañ naa wax ni moo moo moo dégg sëriñ bi moo gis sëriñ bi moo dégg sëriñ bi si mu war ba si ci njaari fii si mu war wax na ba tey ni ma lu bët métti métti métti boo ci dafay jërëm ñaari Cheikh Fall mu wér ndax moo gis Sëriñ Tuubaa moo tax wax na ko tey moom sëñ Mor même sax boo koy def sax doo fëtt sax waaw Cheikh Fall Cheikh Fall bu jë yaa sa bët moo do wax moo métti waaye doo fëtt sax wax na ko ba tey ndax moo gis Sëriñ moo tax